الله أكبر الله والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله بأسراره في حضرة الملكوت بأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت وبالأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم وتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو ندعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ندعوه سبحانه وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا شبيه ولا مشاكلة ولا معاندة ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج تعالى عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <clears throat> الله أكبر كبيرا كلما تعاقبت الليالي والأيام وعاقب الفطر الصيام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة الأنام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 أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم ومآلنا ومآلكم أن يومنا هذا يوم شأنه وعند مولانا عظيم حيث ختم به الشهر الكريم وافتتح به شورى حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزينة وسرور وعظم فيه للعامل الأجور وهو يوم تسبيح قولوا سبحان الله وتحميد قولوا الحمد لله وتهليل قولوا لا إله إلا الله وتكبير قولوا الله أكبر تبادروا إلى فعل مأموراته وأخرجوا صدقة الفقر وجوبا وهي ساعة عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته أو بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلج أو رز أو دخن أو ذرة عن طيب قلب وانشراح صدر كذلك هو الأدب ويندب التكبير حين الخروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام أو يقوم للصلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى فذلك أوفر للأجر وقدر الساعي أربعة أمداد من مده <clears throat> عليه الصلاة والسلام ومن لم يقم على حقيقة قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ أربع حفلات بحفلة الرجل الوسط ليست بالمبسوطة ولا بالمقبوضة فذلك هو الساعة ووقت إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعطاها الفقير يومه ولا تسقط بمضي زمنها في حق المسر وتسقط في حق المعسر ويسن إظهار في الزينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك وتقى وتقشفا مع القدرة عليه والمشي إلى المصلى ندبه متفق عليه والركوب غير مكروه لأنه زينة لها لا يومها وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج مرفف حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا وينبغي ترك المصلى مكشوفا لا بنا فيه وإن كان بنيان فيصلى خارجه في البراحي فهو الأفضل والأولى بل هو المتعين اليوم وقال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض فابرزوا من المنازل تلحقهم الرحمة ولا بأس بخروج النساء يشهدن الخير وكان عليه الصلاة والسلام <coughs> يخرج إلى المصلى العواتق والأبكار والحيضات وذوات الخضور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات ويندب إخراج الصدقة في مثل هذا اليوم فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراشات شاة محرقة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ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 والله أصلح الله يلا يلا هيمنا حالنا تيسنو وحالكم التيسن وما آلنا أكلك سنو وما آلكم أكلك سن أن يومنا نك بسبي بسبنو هذا بلا يوم البسلا شأنه برم عظيم المقلة عند مولانا فبرم سنو حيث قدم بام كسابي تيموم الشهر ويرم شريمة بدأ جتدم ويركور وافتتح تم أبيبي تيموم شورة بيتي ويري أجي برمم الحريمي بدأ بنورمال وجعلوا تم دفكور يوم عيد ويبسي عيد وزينة تي بسي تارو بسي تايبي بسي تارو لا والزينة يوم عيد بسي قدلا yàlla def na bis tey bi bisi keeru zinatin ak taaru wa suróorin ak mbég wax na ma te yàlla màggal na fii ci bis bii la amin ñeel aji jëfandu juura yoor yëpp foofu moom tey yow tasbixin bisi sabbal la nañ wax subhanallah tahmidin bisi sant yàlla nañ wax alhamdulillah alhamdulillah tey bisi wax laa ilaha illallah nañ wax laa ilaha illallah takbiran di si kabbar la nañu wax allahu akbar allahu akbar fa baadiru njëkkante leen ila fayli maamuraat yi ci jëf yiñ digle ci bis bi wa axriju génne leen sadaqatal fitri mu dem koor wujuban ci lu war mu dem koor mu dem koor te képp ku ko am rek daf laa war wa yette moom mu dem koor saala an kulli muslimin war na bépp jullit mu génn saa ci mu doon koor tey zakarin moo xam góor la aw unsa wala jigéen xorin jaam sabirin ku mag mag la aw sabirin wala muy yu xuriju dana génn chaxsu nit ki an nafsi yi man tëgg moom ak képp koo xam ne dundam ci jegeñaale wala ci dencante wala ci njaam wattu tuxraju dem na génne ko min julli an si zalikal balad ca la ëpp ci ca dëkk booba min qamhin ci dugub bi cëgg aw sha'irin wala dugub bi sha'ir aw sultin wala sult aw urzin wala ceeb aw duxnin wala dugub aw zarratin wala mboq am tii bi nafsin ci teeg bakkan man shiraahi qalbin ak ubbeeku xol ku koy génne nag nga ko génne te sa fekk bakkan sa bakkan mu ngi ci sedd mu ngi ci mu ngi mu ngi ci sedd sa xol itam mu ngi ci leer mu ne loolu mooy teggiin yi sopp na bi si tey itam kuy génn sa kër ngay kàbbaar ba waxtu jot waxtu julli wi di jot wala ilimaan di ñëw wala ñu taxawal julli gi <clears throat> baat bi nag mooy kabar bi allahu akbar allahu akbar la baat bi nag mooy ngay wax allahu akbar allahu akbar mu ne képp ku ñëwee yoon itam suy dellu na delloo beneen yoon ñu ne ndax lan la ñu ne ndax ñaari yoon yëpp seedeel la pencam yàlla wala nga sarax miskin yi ci yoon wi booy dem booy dëpp sarax miskin yi ci yoon wale wala nga wane màggaay lislaam ci yoon wi booy dëpp itam wane màggaay lislaam ci yoon wale solo nañu jele ci aws ibnu Sa'd al Ansari wala sa'd ibnu aws al Ansari mu jele ci bayam mu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam bisi korita bu melni nii <clears throat> daf taan wax ne na ngeen xamne ne malaayika yi ñu ngi taxaw ci yoon yeb ak ci mbooleem buntu yi di wax ne tay leen jëm ci borom bu tedd bo xamne dana maye xiw te dana la ci yool itam yool bu rëy mu ne yàlla na wax ne man maa leen digaloon ngeen or bëccëg yi ngeen oor ko ma digal leen ngeen taxawal guddi yi ngeen taxawal ko ngeen topp seen borom léegi nag ñëw leen jël si neexal yi nga xam ne moom la leen yàlla dencaloon pour neexale leen ko <clears throat> mu ne nit dana oote di wax loolu naan e seen borom mu ne baal na leen <clears throat> dellu leen ci seen kër yi <clears throat> di nit ñu jub dellu leen itam ci seen kër yi fekk yéen a ngi ànd ak seen i neexal mu ne bis boobu sax bisi neexal la ko yàlla tuddee ci kaw asamaan mu saa bi mu doon wax sànq ne képp koo xam ne xamoo ko mu ne ñeenti murda ci murdam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne murdam yonentu bi itam soo xamul naka la toll mooy góor goo xam ne ku digg doomu la ci góor ay loxoom digg doomu bu guufee ñeenti guufin rek loolu mën nga koo jàppee ne mooy mudd su boobaa loolu nag mën nga koo xaaj ñeenti xaaj walla séddale ko ñeenti yoon loolu mooy saa ku ko génne rek génne nga ni nga xam ne moom la yonent bi digle ci bis bi ñu génne ko am na ñu wax nag ne ñaar téeméeri kilo la ñaari kilo la ak ak juróomi téeméeri gramme am ñuy wax itam ne ñaari kilo la ak juróom ñaari téeméeri gramme waaye li gën a léem du daal mooy ku koy génn nga gën a génn li gën a bari mu ñaari kilo yi ak juróom-ñaari téeméeri gramme mu ne waxtu ñu ko war a génne itam mooy bi fajar xare tey ba ba jant bi di so mooy waxtu ci gën nañ ko jox miskin mi itam ci bis bi mu ne nag du rob mukk ci képp koo xam ne am nga ko du la wàcc mukk <coughs> kum jafe nag yow wàcc na la mu ne bis bi bii sopp nañ ci feeñal taar ci gëttu ak ci sol yére yu xees moom la wutee bisi ajuma bisi ajuma moom liñ ci sunnaal mooy nga sol yére yu weex dala xeesut tey nag moom liñ ci sunnaal mooy nga sol yére yu xees dala weexut mu ne ba ñi nga xam ne sax dañ leen a tere génn wala am illa ju leen tax a génn ñooñ sax nañ defaru te génn mu ne bis tey bi kenn du ko bàyyi ngir dëdd àddina ak ñegas ñegasulu te fekk mën nga ko mu ne dox itam dem ci julleekaay bi cofeelam luñ dëppoo la <clears throat> war itam simuñ ko ndax mu ne taar la te tey mooy bisi taar mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam génn mukk bisi korite lu may lekk na ay tàndarma te daf koy lekk mu tool mu ne itam julleekaay bi war nañu bàyyi ko mu ubbeeku comme niñ mel nii ñun su julleekaay bi ubbeeku ngay sa diggante ak asamaan dara doxu fi mu ne su fekkee nag ne ngant am na dañ koy defee foo xam ne tabax daf ñoo muur mu ne su boobaa nañ génn ci biti tabax ba jullee fa mu ne loolu nag mooy li gën te mooy li nga xam ne mooy li war <clears throat> mooy li gën a yey mooy li gën a war itam tey mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne weeru koor ñu ko ak diggante asamaan ak suuf duñ ko yëkkati mukk nag lu may bu nit ki joxee koor mu ne yonent bi wax na ne ba tey ne yàlla dana yurndu <coughs> ci ñaari iid mooy korite gi tey ak tabaski bii di ñëw dana suuf wax ne génn leen ci kër yi ndax yërmande ji yàlla di sotti tey dal leen mu ne nag jigéen ñi itam mën nañoo génn ngir fekke xiw yi nga xam ne moom la yàlla di joxe mu ne yonent bi wax na ne daan na génn jigéen ñi <clears throat> ñu jëm ci jullekaay bi jànq jeeg jeeg-jeeg même ñi nga xam ne sax dañoo amee baax yu jigéen yëpp daane wax ne nañ génn ak ñi nga xam dañu dekkon ci seen bargéen yi daawoon génn bargéen yi bu bis bi jotté mëna a ñëpp nañ génn ndax xiw wa nekk foofu ci kay bi xiw wi nekk fii ci kay bi daana tax yonent bi di génn jigéen ñëpp waye nak mëna bu ñëwé nañ bëru goor ñi sopp nañu tam bis tay bi sarax te sarax bi si tay bi boo saraxee ben dañ la ko jappal juroom ñaar fuk moo tax bi bu xutbaan ba paré daan na wax bilaal ne ko toppal suma kaw bilaal topp ci kawam te benn mbalaan yonent bi di wax jigéen ñi ne génne leen sarax ñuy génne sarax di ko sànni ci mbalaan moomu bilaal amee yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne yéen jigéen ñi gëm yàlla <clears throat> kenn ci yéen bu mu xeeb bu mu xeebal dëkkandooram lu ko war jox ci bis tey bii hatta su fekkee xeelab gàtt bu wow koy jox sax buñ lakk sax nag ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne moytu leen safara di la ci fenn ci ma ngeen koy moytoo di ci baat bu teey nga koy wax sa bokkam julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ku nekk yaa ngi ci sa ron sarax bis penc ba ba yàlla di tàggalee nit ñi ñiy jëm fii ñi jëm fii denkante leen hiw te ngeen denkante dëgg denkante leen dëgg te ngeen denkante muñ ragal leen yàlla itam te ngeen xam ne da ngeen tase ak moom yàlla mi nga xam ne fuñ jaar tase ak moom mu ne nañ ko ragal nañ ko ragal <clears throat> te nañ bégal ñi nga xam ne itam ay julli lañ yu gëm nañ tudd yàlla itam lu bari te tudd yàlla moom mu ne bu ci dara nekk soon ci ngëneel lu may lim wax ne boo ma tuddee ma tudd la doy na bu ci dara nekk soon li mu wax ci hadisul kursi ne ana jëli suman zakarani ne man maa ngi jekkaale képp kuy may tudd bu ci dara nekk soon lu may loolu sax doy na mu ne yàlla nee na <clears throat> ku ma tudd ci yéen ci weetaay ma tudd ko ci mbooloo ku ma tudd ci mbooloo ma dajale mbooloo mu gën mbooloo mi fuuf tudd ko ca tudd yàlla nag mooy li nga xam ne ci lañ tasaare wilaaya ku bëgg nekk walu yàlla fa ngay tudd yàlla mu yàlla wax na ci alquran ne tudd leen ma ma tudd leen <coughs> mu tudd yàlla itam luñ sàkku la ci waxtu yépp jaamu yi sax mel na ni am na ci yoo xam ne dañoo am waxtu bu jeexee nga négatif ba waxtoo jot waaye tudd yàlla moom amul waxtu daf nañ ko suudu lu bari te lu bari fa yalla lu bari lay don bokku tax lu bari fa nit ñi ndax nit ñi amuñ dara ci kanam yalla tuddu len yalla da ngeen bari ko yalla nak mu ne mom doylu na walis ñun ñun nak mu ne ñoy ñi nga xamne amuñ dara te soxla lim amé